إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala wareef la ci jaamu yàlla fu mu toll rek muy sant yàlla jalla wa ala ñu ngi seede ne kenn yooyowul ñu koy jaamu ku dul moom suñu yonente ba muhammad salallahu alayhi wa sallam ndawam la bu mu yónni woon mu jàngal ñu nu ñuy jaamoo yàlla bokk na ci jaamu yàlla googe suñu borom ni njëlbeeni néeg biñ taxawal ci kaw suuf ngir nit ña war faa daje di jaamu yàlla day mooy bee nekk ca makka suñu borom nee na def naa ko njub def naa ko njëriñ ñeen bindaafon yi wareef la ci doomu aadama yi ñu xam ne képp ko am kàttan mën a aji ca néeg boobee day àq la bu mu yoral boroomam mu dem bokk ca ñuy aji ca néeg boobee mbokk fa lillahi alhamd ren jii ci sunu réew lu jegee fukki junni nit ak ñett suñu borom yàlla tànn na leen ngir ñu war a dem aji ji ci néegum yàlla ba ak doo xam ne du ñoom lañ koy defal waaye ñi ngi koy defal di ko defal mboolemi julit yu ñu bàyyi gannaaw te ñooy suñuy ambassadeur ca borom ba subhanahu wa taala te ku nekk ci julit xam ne ni ak makk mën naa jot yow dimoo waaye waliyas billah kenn ci ñun ñaanul yàlla ak makka jot makka kenn dajewu fa loolu yi ci fitna lay doon ca fitna yi mujjub jamono loolu dana mas a am yàlla buñ ko fekke ñun mbokk loolu moo tax ba waa jii dem makka day daa soxla ab yóbbal waaye yóbbal yooyee tamit dafa am yu ca gën a am solo ca yooyee mooy li ñu jàpp ne fukki dénkaane mi ngi nii ñu bëgg ko dénk suñu mbokk yi nga xam ne ñooy aji ji ci néegub yàlla ba bokk na njël biinu dañu leen di dénk lan la way aj googu la yàlla baaxe booy dëg di ko defi sàkku ci ngërëmal yàlla sàkku ci pay ga lay xaar ca àllaxira amul kenn kuy aj la yàlla gërëme ñu aje ko lu dul kooku aljanna mooy nekk payam loolu nag mbokk kenn du ko wecceeg àdduna ak li ci biiram loolu moo tax ba ngalawaay jublul ci lépp loo xam ne mi ngi jëm ci sa aj googee nga sàkku ci sa borom yàlla gërëm la nga jege ko suñu borom mu ne sama jaam yi déggaluma leen ludul ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaalik dara di taxawal julli génn azaka lii rek mooy diine bu jub bi mbokk bu dee danga bëgg aji ngir yokk say grade bu ñu lay woo di la wax elhaj wala aja bu daa da nga bëgg aji ngir ngistaru xamal ne loolu nga fa def yépp coono la bu yàlla subhanahu wa taala mabb suñu borom mu ni képp koo xam ne la ngay def àdduna nga ci jublu ñu mel noonu day sii la jëf mabb na ca àllaaxira buñ fa ñëwee du leen ñeel lu dul la nga xam ne moom mooy sawara ngiree ñu fay leen ko lañ nekkoon di ko jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ci yéen na xam ne day lii di yéene moom lay am ca la mu jëf ak lu jëf ja yàgg-yàgg ak lu jëf ja taaru taaru yéene ba nekk ci xolam rek la yàlla fay su ko defee ñay dem Makka day bari na waaye ñay ak toll lu ñu noonu am na ñu fa ñëw yàlla rek la ñuy këcc am na ñu fa ñëw leneen moo leen yëkkati ngalla waay yow mi yàlla wërsëgal ñaanal yàlla bokk ci ñi nga xam ne yàlla dong moo leen yëkkati bokk na ci loolu waa ji nga xam ne day aji su demee ba armal la nga xam ne moom lay wax bu jëmee ci néegu borom ba mooy yàlla day wuy si naa la maa ngi sax te di la wuy si labbayk allahuma labbayk yàlla wuy si naa la amoo kenn ku yeyoo ñu koy bokkaaleeg yow la sharika lak labbayk ay yàlla wuy si naa la mboolem cant yi mboolem xiiwal yi yow dong la ñeel inna alhamda wa nicmata laka wal mulk mboolem moomeel gi yow rek la ñeel la sharika lak loolu la xujjaaj bi di wax mooy labbayka ba kon day wane ne yow yàlla dong la yëkkati day wane ne yow yàlla dong ngay jaamu day wane ne yow mbooli mi xéewal ci yàlla dong nga ko yaakaare moo tax nga naan ko inna alhamda wa nicmata laka wal mulk lépp luy cant yaa xéewal yaa ngóor ko ci sa loxo la nekk mbokk loolu mooy la gën a am solo ci waa ji dem makka la muy yóbbaale ngalla waay mu moytu lépp lu aju ci wàllu ngistal ñaareelu dénkaane bi yow mi bëgg a aj ngalla waay góor góor loolu tuub say bakkaar lépp loo xam ne xam nga ne yàlla nattoo woon na la ko nga nekkoon ca toroxlul tuub ko bala ngay dem di aji ji makka xam nañ ne suñu jamono tey kenn du làmb sa poos rek dugg avion dem ñii war a dem makka depuis ca weeru baraxlu wa lañ xamoon ne dañuy dem makka ñu commencé leen enregistré diggante boobu nag dafa war a nekk diggante toroxlu tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala suñu borom mu ne ngal la way de leen tuub dellu ci yàlla ngiree ngeen doon ñoo xam ne da ngeen di texe mu bokk ci loolu jaami yàlla yi nga xam ne da ngaa séqoo nag ñoom ay aq loolee nekkoon bor yoo leen yoroloon wala mu nekkoon tooñ yoo leen tooñoon ngalla way demal fekki leen jéggalu leen ci loolu loolu moo waraloon sun mag ñi di tàggatoo mu safaanoog tàggatoo puukare bi ñu xewal tey woo ñëpp takk bâche di woy nit ñi daje mel ni ak ciit ñu ne lan day tàggatoo pour makka mbokk loolu ñun ñoo ko sos waaye lañ nga xamoon ci tàggatoo mooy ña nga xam ne say jege ñaane lañu nga sàkk ci ñoom ak ñaan ña nga yoraloon ay aq nga dem xamal li ne ah diw day am na lu mu siqoon ak yow mi ngi nii wala amuloo ko dama bëggoon nga jéggal ma baal ma loolee moo la aji dem makka ji war a bàyyi xel yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ay waay ko yoral moromam aq na ko ko jéem a fay balaa bis ngi ñëw yowmal qiyaama daan taxaw nga war a fay aq yooyee ca bu gëreew gi say tuyaaba la ñuy jël di séddali nit ñi bu say tuyaaba jeexee ñu jël ca bakkaar yi ña nga yoraloon aq ca delloo woo leen ko woon ci àdduna commencé di la ko sotti ba am na ci ñoo xam ne fa la ñuy jóge daa di fay jóge dem sawara waliyas billah ñetteelu dénkaane bi yow mbokk mi war a aji mooy ngalla waayi yóbbaaleel la nga xam ne nii mooy ak ragal yàlla mbokk ak makka jaamu yàlla la te jaamu yàlla bu métti la yonent bi salallahu alayhi wa sallam da doon wax mooy jihaatu jigéen ñi ak jihaatu magget yi bul jàpp ne voyage de noces la bala jaamu yàlla la fexeel góorgóorlu muñ ca coono ya cay nekk fexeel góorgóorlu def ca effort yu lay jegeel sa borom suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni ngal la waay yàlla moo faratal aj bu ngeen dee dem yóbbalu leen la gën a màgg lu ngeen di yóbbaloo loolu mbokk moom mooy ragal yàlla subhanahu wa taala ca bokk na ragal yàlla googee lu la cay mën a dimbali ca mooy juróomeeli ca mooy ñeenteelu dénkaane bi ñu lay dénk yow mi war a aji ci ngalla way xamal ne ak màkka benn ponk la ci ponk lislaam comme julli comme koor loolu it moo tax ba du rek ne da ngay tukki comme ni ngay tukkee New York wala Paris bal war ngaa jéem a jàngi jéem a laaji moomoom ak aj nun koy defe ak boogee am na ñetti façon aj su ko defee banque tànn war koo def nga toog ak ay boromi xam-xam laaj leen ñu leeralal la lépp loo xam ne lënt na la ca ak boogee nga defe ko naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane ndax kat mbokk julit julli gii ñu bëgg a julli léegi képp koo xam ne da ngay jóg di sujjuut avant ngay rukkoo wala ngay nekk di sujjuut avant ngay taxaw yooyu yépp yéen ñépp xam ngeen ne baaxul loolu it moo tax ba ak nakk it dafa am ay fonkam ay waajibaatam ay sunnaam loolee da nga koo war a xam yonent bi alayhi salaam da doon wax sahaaba ya xuzu anni manasikakum xoola leen ci man ni may aja ngeen aja noone loolu kon ku nekk ci ñun war a góorgóorlu xam ko te falilahi alhamdu nekkul lu jafe ndax aj màkka la ci ëpp ay jëf kese la bari na luñ lay sonal ci boo tollee fii lii nga war a wax lii nga war a wax lii nga war a wax yooyu yépp ay ngéneel kese la waaye aj màkka fonki aj màkka du ay wax waaye ay jëf la juróomeelu dénkaane bi ñu lay dénk yow alaaji li wala yow ajaa bi war a aji ji ngal la waaye taxal ba dajale alal ju lew alal joo xam ne nii lewul nan ko faggoo daganul wala bor yoo yenu te fas yéene woo ko fay loolee day day tax kat ak yàlla subhanahu wa taala du ko nangu yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na sa borom yàlla ko tey la ca du nangu lu dul loo xamee ne nii lu tey la loolu moo tax ba kii nga xamee ne nii mooy suñu yonent salallahu alayhi wa sallam ci loo xam ni atabaraan yi génne na ko abi hurayra nettili ko nee na waa ji dajale alal ju lew dépensé ko ci yoonu makka heure bu jógee taxaw na labbayk allahuma labbayk dana am ko ko woo ca kaw asamaan ci ndigalu yàlla na ko yow day nangul nañ la wuy si bi ngay wuy si ci acc ndax kat sa yóbbal bi yóbbal la boo xam ne nii yóbbal bu dagal la ca sa aj gi aj bu ñuy nangu la amma ka dajale alalam ci loo xam ne lu xaram la heure bu jógee taxaw ne labbayk allahuma labbayk yàlla wuy si naa la dana am ku ko woo ci kaw asamaan na ko yow day kenn wuy wu la yow sa yóbbal bi daganul sa aj gi baaxul loolu moo tax ba nañ góorgóorlu bala ñuy yóbbu makka mu leer ñu ne lii moom alal ju dagan la loolee dee tax suñu aj yàlla subhanahu wa taala nangu ko la nga xam ne nii mbokk julit mooy juróom benneelu dénkaane bi ñu lay dénk yow ajaa bi wala yow elhaj bi nga la way booy dem xoolal ñu baax nga ànd ak ñoom ak makka àndanoo la caa baax tukki bu mu mën a doon àndandoo da caa baax soo amee say mbokk wala dëkkandoo ngeen lënkaloo wala boo demee mbooloo moom buñ dajee rek bu yàggee ñu bokk jukko daal di ànd xoolal ca mbooloo ma ña nga gis na ñoo ci gën a dal gën caa kay gën caa jege seen borom nga ànd ak ñoom suñu borom nee na booy ànd dalalal sa bakkan ak ña nga xam ne ña ngay woo seen borom di ko toroxlul moytul di topp ña nga xam ne seen xol yàlla da koo sàgganal ci ñu fàttaliku yàlla ña nga ca takkaay yaag oor yaag wax yaag coow laag yi deme noonu yàlla waay yow mi nga xam ne nii yaay ajaab yi wala ilaaj bi moytul di ànd ak ñooñu abu musa al ashari ci lu yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam nettali nee na day misaalu waa day toog ak nit ñu baax ña ak ñay toog ak nit ñu bon ña mi ngi mel ne ki toog ak jaay ko te par ko imma nga jënd wala mu may la wala nga amee ci moom xet bu neex mooy bu dee ku baax nga toogal amma toog ak ku bon imma mu lakk sa yére wala nga jële ci mu xet bu bon kon nga la waay bi nga nekkee Sénégal xoolal ña ngay toogal waaye rawatina boo demee ci place yu mag yooyee ak jaamu yàlla bu rëy googee xoolal ana ñan ngay ñëw ana ñan ngay jege ana ñan ngay toogaale ak ñoom la nga xamee ne mooy juróom ñaareelu dénkaane bi ñu lay dénk nga la waay yow mbokk julit yaa ngi dem nar a ànd ak ñoo xam ne ñu ëpp ci ñoom yéen a ngi doog a gisee seeni dëkkuwaay bokkul yaa ngi juddoo Dakar moom ma nga juddoo Kidugu yow alpulaar nga moom bambara la yow mag nga moom ndaw la yow intellectuel supérieur nga moom musul toog ba nga école donc yooyu bu ngeen bëggee nag bokk benn néeg pendant un mois fokk ak muñalante am ci loolu ngan la way ku nekk ci yéen dem ci jataay yu mel noonu lañ koy jëkk a dénk mooy nay muñ nattu ya nga xam ne day jóge ci ay dëkkandoom ca xam na loolu ci ak makk ji la bokk ci yokk dara ji la bokk ci fóot bakkaar yi la bokk lor ya nga xam ne ñi nga àndal dañ la koy lor waaye tamit na nga doon aji kuy jéggale jéggal tooñ yañ la tooñ suñu borom nee na cër bu rëy la boo xam ne ñu néew ci ay jaamam rek ñoo ko am waaye gannaaw loolu itamit moytul yow sa kemtalal kattan tooñ sénégal ak a bon waaye dem ba màkk di fa tooñ suñu borom yàlla nee na ku fa bëgg a tooñ sax danaa ko mbugal waxumaa ne ku fa tooñ waaye ku fa bëgg a tooñ rek danaa ko mbugal loolee di dénkaane boo xamee ni ni képp ci yéen nga la waay buy dem na yóbbaale loolee mu bokk la nga xamee ni nii mooy juróom ñetteelu dénkaane biñ lay dénkaane yooyu mu bëgg a aj suñu borom yàlla nee na wa ma tafalu min xayrin fa inna allaha yaalamu lépp lu ngeen def ci lu baax xam naa ko mbokk ak makka mooy dem defar sa bopp waaye mooy dem jëriñ jaami yàlla yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak ba mu àddijee yóbbaale ne téeméeri giléem rey giléem yépp séddale ko fuqaraaw yi da ngay gis ne kii nga xam ne mooy alxakim ibnu xisam daana def bu daan ñëw di aji si koo xam ne nii doomu bàjjeenu xadija soxna yonente bi salallahu alayhi wa sallam la bu ma saan dem ca arafat da daan jënd loo xam ne nii dana nekk téeméeri jaam la daan jënd yóbbaale téeméeri giléem suñu demee mu rey giléem yi woo jaam yi gorel leen bu ko defee waa arafat yépp yëkkati seen loxo ay yàlla sa jaam bi di xakim ibnu xisaam jaam yi mu yoroon gorel na leen ay yàlla yàlla nag ñu gorel ci sawara loolu mbokk it muy wane ne yow mi war a dem di aj ji makka ñii di yóbbaale cinq cent mille ñii un million ñii nangam nar koo pasar pasari ci ay pakoti ñépp ña nga xam ne da nga dajee nag ñoom foofu nga yëg na yaa leen tane miskin ya ngay dajal foofu ngan la waay loo man ci dimbali leen loo man ci def lu baax ci at googee xamal ne dërëm ba ngay dépense foofu du yem ak beneen dërëm booy dépense ci feneen fu dul foofu la nga xamee ni nii moom mooy juróom ñeenteelu dénkaane bi ñu lay dénkaane yow ajaat yow mi nga xam ne da ngay aji ji nga la way na nga xamee ne li ëpp ci doomu aadama yi xamuñu doomu aadama yi xamuñu ni ñuy jaamoo yàlla rawatina ñu ci bëri dañuy jóg rek ñu may leen paasu makka su ko defee ñooñu nga dajal foofu loo man ci laayi leen biir kee nga gis kat buy jóg di julli ji day këpp këpp këpp këpp woo ko ci ruq xamal ko ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam day nee na julli gu mel nii yàlla du ko nangu kee nga xame ni nii xamul naka lay taxawe ay faratay njàppaam kee nga xam ne xamul lu bari ca wàllu na muy aje ngan la way xamel ne diglu lu baax ak teru lu bon ponk la bu rëy ci sunu ponk diine bi jaamu yàlla gu mat la ci sunu jaamu yàlla gi waaye ña nga fa gis ñuy def na ko su dul noonu rawatina jigéenu sénégalais yi nga xam ne jàpp nañ ne naka moom mooy jaay taar ak jaay kaza wa kaza ngar la waay ñooñu dee leen laayi biir xam leen ne lii ñuy def baaxul rawatina saggan nga ñuy saggane di génne seen awra loolee nekk na boo xam ne nii ak musiba la wallahi benn waay nettali na ma loo xam ne nee na ci arafat ay jigéeni sénégalais daal di ñoo xam ne ñuy summi seen yére jël bi doo ndox di ko sotti ko moo am ñaari naar yu yem ci ñoom di jooy jooy yu metti loolee ba ma ko déggee man mu xaw maa naqari ndax bu dee mën na du ma jooy ndax xam naa yàgg naa gis musiba yooyu waaye ngal la waaye musiba yooyu na yem Sénégal makka yemul ak fenn heure boo demee makka sàmmal sa awra heure boo demee makka sàmmal sa doxalin waaye képp koo gis mu sàggan ci loolu it jubbanti ko sa kemtalal kattan loolee mooy sunu baasu diine ji la nga xamee ni nii yow mbokku julit moom laa la ñuy mujj a dénk mbokku makka day ab traite la boo xam ne yaa ngi fay dugg nar faa dem dajali sa ngërëmal borom bu dee dem nga fa wóoru la ndax da nga fa mën a dellu si wat ab déet nga la way góor góor lu ci loo man ci lu baax mu am li ci yomb lool mooy lii nga xame ni nii moom mooy zikrullah baril sa lammiñ ji foo toll del def zikrullah baril di jàng alquran baril sa góor góor lu di ñaan ñaan yooyu bu ko yemele ci yow ñaanalal mbokk julit yi ñaanalal lislaam wala way ñaanal yàlla musal mboolem ñu dund lislaam ci ayu yéesér yi ñaanal yàlla dimbali musal ñu mboolem ñu dund lislaam ci ay ñi nekk ci seen biir di débbiyee ñu xamul ci ñun di débbiyee suñu ndaw gi ñaanal yàlla fay seen woote boobe ca yëkkati la nga xam ne mooy wooteeb alquran ak sunna ba nga jógee jublu ca kaaba ga ba ba nga fay nekk ba baa ñu koy woon gannaaw ngalla waay jàppal ne yaa ngi jóge woon sa kër nekk ci biir jàkka ji wallahi mbokk jàkka ji li ñuy warmal warmal makka ko gën a warmal li nga xamee ne boo jógee sa kër nekk ci jàkka ji da ngay changer sa comportement heure bu la yàlla wërsëgalee ba nga dugg makka ba baa ngi génn makka xamal ne yaa ngi ci biir jàkka loo mën ci lu baax def ko moytul képp ku lay yóbbu ci waxi caaxaan ak waxi moosóor waaye moytu leen gën jaa magge mooy ta moytu mbokku xiiwal bu rëy bu ñu yàlla nattoo suñ jamonoy tey noon bu rëy bu ñu yàlla nattoo suñ jamonoy tey muy li nga xam ne muy portable nga la way sa aj màkka woogee bu ko jeexal ci sëgg ca portable ya ca filmee ka seetaan vidéo yaag audio yaag yoo xam ne amul na benn njëriñ lépp lu ci amul rapport ak sa aj màkka googee nga la way woon ko gannaaw te xam ne yaa ngi ñëw ci loo xam ne ni ma la ko waxe sànq yaa ngi mel ne ku nekk ci julli wala yaa ngi ne mel ne ku nekk ci néeg ngal la way moytul loolu sa kémtaleel bàttam fexeel ba benn jour bu mu la wécc sa at fexeel ba benn heure bu mu la wécc sa at fexeel ba benn minute bu mu la wécc sa at lu dul ne yëg nga ne ne yaa ngi koy jagleel la nga xam ne mooy jaamu yàlla et yéen ujaaj yi nga xam ne yéenay jëm makka ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yombal seen acc yal na yàlla barkeel seenu acc yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal leen ko lu yonent bi alei salaam digle ci loolu te nee na képp koo xam ne at nga te defoo fa lenn lu yàlla gërëmul day booy nibbi siwaat danay mel ne keroog bi ngay judd sa biiru yaay yi yéen a ngi dem ñi ngi leen di ñaanal waaye di ànd ak yii nit ci suñuy xol te ngal la waay yow mi nga xam ne yëpp yàlla wërsëgal na la di moo makka ca la la tee dem makka ga mooy ngant bu yàlla xam ci yow xamal ne yàlla ci mbaa xam yërmandeem yool ba waa makka di la makka yàlla dana la jox yool bu tol noonu comme na mi saxe ci ay xadis xadis yoo xam ne xadis yu bari la ñu ngi ñaan it borom bi subhanahu wa taala yàlla yàlla barkeelal ñu nawet bi ñu nekk ñu ngi yëg na ne dëkk yi ci àll bi ñi am nañu ci taw waaye ndakaaru ba léegi des na yàlla bu ñu yàlla toppay ndakaaru waa ndakaaru yàlla yàlla wàcceel ñu nawet bu barkeel loo xam ne danañu jëriñ te dañu lor yàlla yàlla wàcce jàmm ak xéewal ak naataange ci suñu réew wàcce ko ci mboolem réewu julit yàlla yàlla defal ñu aafiya fi dunia wal axira mboolem suñu mbokk yi julit yi jiit ci biir suuf yàlla yàlla jégge leen yàlla yàlla yërëm leen mboolem suñu njaboot gi yàlla yàlla teete leen ila sirati mustaqim def leen ñu sedd suñu xol adduna ak alaxira اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين